voilà xam nga li ngay expliquer et les problèmes fonciers aussi. voilà c'est voilà. véritablement la norme. Surtout dans la gestion régalienne de l'État. ñun tey suñu impôts yi ak suñu taxes yi ak confiance bu population bi jox c'est pour ça tey un père de famille bu jóg jox famille am ndékki jox famille am añ. waaw si le fond kay comme comme dafa dafa loolu noonu dafa nekk lu normal. Ah. dañ leen di wax waa góor ok je te le conseille ok mais man fan laay xaare ah. xam nga dans euh, tey ñun on peut gérer quand on parle de la souveraineté alimentaire ñun tey au niveau du Fouta précisément de département de Podor ba Matam sax ñun tey mooy le riz ça a toujours chanté par l'ancien régime mm je pense que peut-être am naa yaakaar en tout cas surtout avec le man maa ngi félicité au dépassage ministre de l'agriculture félicité naa ko léegi léegi bi ma doon wax. Mhm. am nañu yaakaar ñu mettre en œuvre des aménagements structurants le problème d'abord de base les aménagements dañuy def ay aménagements yoo xam ne yow da ngay jaaxle ñii xaalis bu ñuy wax ni milliards yi jël nañ ko fuñ ko dugal ensuite autre chose mooy tey. ba may jóg Podor ça ne fait pas encore euh, di une semaine bon laa fi defoogum ak yooyu euh, sentirooguma xam nga ñu ngi wax véritablement dañuy def ay coopératives sa c'est pertinent je sais que loolu moo mu ne créer même un déclic mais jusque là en tout cas peut-être c'est encore tôt mais gisaguma au niveau du terrain euh, une sensibilisation des actions dans le sens en tout cas d'organiser la population paysanne autour véritablement de ces de ces coopératives. lan moo ko mën a justifier mhm. selon yow mhm. retard boobu noonu ba mënu leen ko sentir alors que ça se fait sentir dans d'autres localités. Mhm. selon yow lan moo koy justifier. ma moo tax sànq may wax ni les signaux. parce que wax naa la les livres programme règlement de compte la quoi. pour non non bon règlement de compte parce que man keroog. comme titre foncier Macky Sall la woon ministre de la santé keroog ñëw na moom xam nga il est de de de Diatta il est de Podor. le ministre de la santé c'est à 4 kilomètres de Podor. vraiment daf nañu seen activité euh, mooy léegi euh, c'est de setal ak yooyu indi ay dons d'ambulance ak yooyu mais man pour man. li taxoon man. am Macky Sall ba sa xel dalul. ba li taxoon Macky Sall à mi mandat ñu bàyyi ko. Mhm. dara laay wax. gisagoo ko di di di di législative suñu demee duñ di di wu ci Macky Sall euh, local su ñëwee ñuy opposé wu ci Macky Sall parce que après. fu ñu ko doon xaar ci ay aménagement terre pour fu ñu doon xaar aussi ci transformation agroalimentaire yéen gis ngeen tey. soble mais est-ce que yéen wéetoo leen ci xeex bi parce que bu bu ñu gisee résultat yuy hmm. jugee pour euh, Fouta en faveur de Macky Sall est-ce que yéen aussi seen combat boobu ngeen di mëne Euh, la population de Fouta. gis nañu seen bopp si yi nga xam ne. non xam nga xam nga da ngay ñëwaat. yow en tant que journaliste sur le chiffre. Mhm. Fouta ñaata la. Fouta on est à deux cent presque quarante mille électeurs. dans les deux cent quarante huit mille électeurs su nekkee tu n'as que la moitié. Mhm. mais beneen expression dans l'analyse l'autre pourquoi l'autre moitié n'a pas voté. Mhm. pour le régime c'est un problème. mais maire bi dafa c'est la chose la mieux partagée. Mhm. maire bi dafa commencé woon génn. Mhm. parce que euh, dafa génn ci ci ci même présidentielle bi feeñ na ci parce que ay ay cent mille yu ñu am sur les mhm. deux cent quarante mille. surtout la jeunesse tey su nekkee tey la coalition Sonko mën na dem ba am dix mille. Mm. bokk ñoo xam ni pour ñu amoon deux mille problème la woon. donc yooyu yëpp dama man xam nga pour man. waruñu ñëw caresser au sens du poil. Mm. mais dañu war a ñëw duut baaraam. jafe-jafe yi pour véritablement au niveau des collecti la collectivité locale <coughs> le maire Racine Sy régler problème yooyu d'abord revenir à l'orthodoxie de la gestion d'une commune mooy communion avec les populations mhm. ngay mm recevoir les organisations de base ngay waxtaan ak ñoom lépp décision bi nga war a def c'est bien même soo gis nga comme kii bi euh, moo fay cadastre moo fay les géomètres ci poche mérite la mais mais forme bi moo baaxul. D'accord alors.